ko sëñ yaa ngay bonde sëñ yaa ngay bonde sëñ yaa ngay bonde waaye mën nga tëjal lépp mën nga tëjal lépp maa yey maa yey maa yey ay waay waay buur waay waaw tëjal na ko nen ba Thiatou Senzala Talla Gaindé numéro 2 jël nañ ko Talla Gaindé Talla Gaindé dem na Thiatou Senzala Thiatou Senzala dafa mel ni rakku mobile la mbokk yi caxabal na ko da koy daan da koy daan eh Talla Gaindé daan na ko Talla Gaindé numéro 2 daan na Thiatou Senzala eh xoolal ma Talla Gaindé na muy def xoolal ma Talla Gaindé numéro 2 na muy def Talla Gaindé numéro 2 Thiatou Senzala Talla Gaindé Thiatou Sansala daan na bi Parcelles la dëkk alors non dama bougé nii su ma génnee tuuti fekk ay 30 minutes la bu ma déggee yow fekk 30 minutes dinaa la woo incha allah. Thank you.